ñu ngi dalal tey euh, sëñ bi Félix Mboup euh, jiite collectif des locataires du Sénégal ñu lay nuyu sëñ bi Mboup. ñu ngi lay ñu ngi si Elisabeth. Mhm. Euh, yow tey gannaaw ay kàddu njiitu réew mi ca jokkoo ak Macky gam doon amal ca Médina aveu d'échec la mën a wax ci li jëm ci réglementation loyer bi ban commentaire nga ciy def. Ah, ñun de d'abord li ñu ciy wax mooy dañuy rafetlu mbir mi réaction da nga koy nakarlu euh, dañuy wax tamit ni loolu mooy wane ni Sénégal maanaam réewum échec la mhm. boo xam ni da ngay nungu so nungoon nag sa échec baax na mais loo def échec ca euh, di ko nungu euh, doon ni sax naa ko rectifier loolu daal ñun doy na waar daal suñu ko tey laneen liñ bëggoon a wax tamit moo di du lu nu bett parce que Sénégal c'est pas en pays de droit c'est pas un état de droit maanaam Sénégal du réew yoon maanaam yoon dañ ko suufeel faale wuñu yoon. ah ci lan noonu. lii wane ni faale wuñu yoon dama lay jox benn exemple mm-hmm. ñoom li ñuy bañ ñuy wax léegi moom la ñuy wax. Mm-hmm. xam nga loolu lañ doon bañ parce que dañ ni suñ ko defee ñu nit ñi dañuy politique di ndaw lii wane ni Sénégal du réewum yoon. réew moo xam ni benn problème moo am ci diggante xale bu jigéen ak as ngóor ngóor su mel ni man di citoyen mm-hmm. mel ni Macky Sall di citoyen comme ñëpp loola am léere la gunu ko fukki nit ak ñeent am nañu ni sax ëpp na ko faatu ci ban ci faatoo ba léegi ñu taxaw mënagunoo wax Sénégal lu leer lan moo tax juróom fukki nit ak ñeent yooyu faatu loolu moo lay wan benn exemple laa la jox fa ma joxaat la beneen exemple. Mm. ma ba suba ay militaire demuñu fi fii ba Koweït xeex yi wàcc fa seen bakkan jusqu'à présent les seeni famille di def ay grève de la faim loolu réewum yoon la. Mm. ma joxaat la beneen mën naa la joxaat exemple ba <laughs> ginnaaw suba. kon xam nga ñaar yooyu rek doy na. ñaar yooyu laa lay wax. Uh-huh, na waaw du réewum yoon. respecté wu yoon moo tax président taxaw ni loi boobu ñu voté mënu ma dara ci location loi boobu gis gis kenn du ko appliqué wu ñu ko loolu loolu la rek loolu la rek. Mm-hmm. kon yow daal jàpp nga ne euh, kàddu yi. ñu waxee ko neneen euh, daf laa bett daal. daf ma bett mënoon na ko waxee neneen xam nga lu mu waroon wax. loi nan ko càmbaraat. xam nga mais aussi moom d'ailleurs am na le directeur du logement je crois bien. Mm. xam nga yaa moom ce qui dama lay wax ne la cohérence na. Mm-hmm. ñu ngi travailler sur la réforme nous allons apporter de collectifs à la loi à, à, sur la loi euh, consacrée aux lois mhm. mais waaye kon pendant des années kooka bu liggéey ñaari at léegi Macky Sall dafa dafa xëy benn moo nga naa yokkuwut ak te moo ko mais maa ko man c'est les documents man lu ñu def article bu mu ci loi yi dama koy xool c'est les documents man naa la ko génneel directeur di loi moo taxaw ni nous sommes en train de réfléchir sur comment rectifier comment revoir cette loi sur le loyer maa ko lire ci internet bi léegi mu loo ba yàgg na sax ma ne waa mais kii moom mbir mi mi ngi yàgg ab loi soo koy defaraat dafa yàgg Macky Sall xëy ni loi boobu maanaam jël na ko yóbbu ko ci mbëbës ca ma loolu lan lay sa loolu mooy wane ni ñoom cohérence amul ci li ñuy def ñoom dafa mel ni xamul lu ñuy def. bu weesoo kàddu yi. Euh, tey yow boo doon évaluer euh, nga génnee kàddu Macky Sall yi évaluer ñu depuis 2014 ak léegi loi bi ndax am na lu mu soppi ci locataire. dara soppi ci locataire yi gis nga def. Mhm. li wolof tuddee jàngo euh, kii bu jur jàngoro. saafara gu jur jàngoro. saafara gu jur jàngoro moom la doon. li ko waral mooy loi bi ñoom ñoo ko tëggewul nañ ko war a tëggee loi bi wax naa ko ay journaliste yow yaay juróom-benneel bi journaliste mbaa juróom-ñaareel bi loi bi au lieu mu régler problème yi locataires yi lanu foogoon loi bi dafa ñëw dugalaat locataires yi ci guuta toroxal locataires yi loi bi dafa ñëw mel ni euh, kayitu kayitu gerte caaf hmm. bayeer di ko bayeer di ko di ko pamte pamtee di ko xotti di ko toroxal loi bi réglé wul benn problème léegi nag comme loi bi réglé wul problème li ko waral dama la koy wax. Hmm. xam nga lan moo ko waral. na ko waral bi ñuy élaborer loi bi dañu waroon a jël les acteurs boole leen ci. mais Sénégal li leen échecgé loo mooy lu xew duñ ca boole ay acteurs état bi donc la la la méthode verticale ca état ba léegi. da nga jàpp ne liñ leen a beddi moo tax. Euh, loi bi mënul dox ndax xamuñu lan lan la lan la secteur bi bëgg. voilà très bien. voilà les vrais acteurs suñu jëloon ay acteurs ñu war a mat mhm. man man daal askan seen acteur la. bëgguma nit ñu nit ñi xam ma la ma yàlla xamaleeg nit ñi moo ma gënal nit ñi xam ma. mais yow nga jàpp moo tax loi bi bloqué. mais loi bi dafa dafa bloqué parce que ni nga ko demee moo baaxul am na noo xam su ko defee woon dañuy verrouiller il fallait verrouiller la loi procéder par zone parcelle Assainies ni woon vingt six unités yi parcelle vingt six unités yi parcelle am. kenn amul droit nga loué fii ab appartement salon plus de quatre soo ko waxoon tey dama lay jox exemple xam nga soo ko waxoon tey su ko nit appliqué wul kooku hmm. police moo koy réglé. dëgg la waa waa day bàyyi ban laaj ko xaalis mun ñëw la nga jox ko reçu bu dem police nii ñu ngi may fay ko quatre vingt dix mille te na soixante dix mille francs par zonage loolu la waroon a def. kon bu ma la déggee comme par exemple comme ni nga ko waxee Parcelles Assainies yi euh, bépp kër bu euh, euh, bu bu bu buy loué lii la war a loué. du ñu xool sax standing bi maanaam. kër goo xam ne na tabaxee yamamaay na wala kër goo xam mani standing jëru ta xool bu nu fi kenn rey gis nga yi nii rafet yi nii tiitaroo Dakar hmm. yi nii Dakaaru hmm. soo demul dugg ci yenn kër yi aux États-Unis mbaa Europe sa bopp complexe bi moo metti Sénégal yi nañ génn seen bopp complexe moo tax mburu yokk ñun ñu bàyyi ñu bàyyi fonde hmm. na ñuy ndekkee fonde nan bàyyi complexe bi ñun amuñu dara fii Sénégal en 1960 ñu ngi fi gis ñuy rey seen bopp naan y avait pratiquement les gens étaient dans la quasi pauvreté. Mm-hmm. Senghor quand il a quitté la France. ba mu demee ci àll mm-hmm. bi mu demee Sénégal di campagne quand il a quitté là il versait parce qu'il a constaté cette misère. Mm-hmm. mi ngi mel ni tey yow ñu jëlee la Dakar fii dem yóbbu o benn benn village bu benn village bu reculé. Mhm. affecté par la guerre dans le yi nga gis nañu ni ñuy dund waa Éthiopie du njëkk gi fii Sénégal amulu dara. Mhm. nan bàyyi complexe bi nan yi waxante Sénégal yi aussi dëkk. Mhm. y' a pas des questions de standing xam lu fi am. ñun Dakar man man man bëgguma këru Dakar. je vais vous donner cet exemple je n'en peux pas. lu ma fi de fii lu ma fi de pollution sonore pollution xaw ma lan atmosphérique façon bu ne je préfère mon petit patelin xombol. une parcelle de deux cent cinquante mètres carrés à huit hectares de Dakar je n'en pas besoin parce que huit hectares doo ko yóbbu doo ko yóbbu arméria mm-hmm. huit hectares du dugg ci bàmmeel mm-hmm. et puis Dieu va nan nga amee huit huit hectares yi nan bàyyi complexe il n'est pas normal que ab logement aux États-Unis à Padoue nit a ma gis may le loyer mu woo ma après ma may fii Padoue tu avoir un loyer ni ma standing bu baax ah wax ma mais bi ma ko waxee ay deux cent cinquante mille lay doon te Padoue c' est une c' est c' ñu ngi jël jël en otage dafa mel ni léegi nag xam nga ban phénomène mooy am man perspective yi. da laa bëgg a ñëw xam nga luy xew Dakar. nit ñi ñoo leen di bàyyil Dakaru. que ah. waa Ndakaaru bu nu fàtte ne eh, bi xëy na la newoon. xam na la moo bi ñëw ni ko Dakar. Uh-huh. loolu nag moo continué moo waral nit ñi dañ leen di Dakar te leen <laughs> kon jàpp nga ne. non euh, non li ni mel daal bu yàggee. Euh, nit ñi dañuy génn Dakar ku ci nekk. yàggatul ci biir dëkk bi maa ko wax. na ko nit ñi bind yàggatul yàggatul nit di nga yor sa location Dakar mbaa sa kër di ko abal nit nit ñi dañuy génn Dakar. loolu moom jéggi na xam nga nit sëñ Touba nee na woon ñëpp ñëpp Touba la ñuy wut si. Hmm. nit ñi bala ñu yëg ci Touba ñu ngi ñëw jamono après Touba ñëpp ay génn Dakar nit ñi nga yor sa appart crise du logement mooy am Dakar baa ko wax tey bind ko. <laughs> Cheikh Anta Diop lu mu waxoon Cheikh Anta Diop lan la waxoon Abdoulaye Wade dina nekk président de la République ba mu koy wax ñu bëri gëmuñu ko. dëgg la. ba joxe année bi après ni ki koy remplacer nii lay mel. muy après ni gis muy Macky Sall dëgg la du dëgg maa la ko wax tey na ko jàpp bind ko. ba ba wax ci mbiru luwaa yi sax. yooyu yëpp am na yëpp man mhm. maa mhm. bind ko tey fenn noir sur blanc. Félix Mboub moo la ko wax la tey laay fêté sama anniversaire. te le hasard n'existe pas Dakar. ni leen day yor nekk ay rajo daal ñëw leen dëkk si waa Dakar. Dakar te loolu nag dafa rëy dafa am lu ko indi. loolu yëpp ay ay prise ay otage la Eh. Sénégal yi yàgg na ni ñëw di jël nit ñi en otage. Ndakaar dinañ toog soxla ay prof du ko am maa la ko wax. jàppal tey d'accord eh, soxla ay ay infirmier du ko am. ñëpp lañ di abal Ndakaar du dëkk bi yërmande. <laughs> d'accord ñu gis ne euh, logements sociaux yi bu ñu sukkandikoo ci moom mi njiitu réew mi nee na moom la jàpp ne mooy doon solution ndax yow ànd nga ci. Euh, man euh, bon logements sociaux yàgg naa ko gëm logements sociaux bon. mooy régler problème bi Senghor comprendre doon na ko loolu mooy régler problème bi mais mm-hmm. avec ce régime comme logement social dina nekk solution bi parce que déjà régime boo xam ne lu mu la dig soo la diggee fukki dërëm ñaar dërëm la lay jox soo soo amee sens nombre de logement bi ñu dig nit ñi pour man duñ ko joxe. Mm-hmm. benn mm-hmm. ñaareel même suñ ko doon joxe di jaar yoon day mel ni recrutement cinq mille enseignants lu baax na nag même suñu amee bon ay ay yu man am na lu a parce que man jàngalekat laa du ful. Mhm. donc c'est logement yooyu ñu dañ doon les logements les cent mille logements yooyu ñu wax mais nañ génne spécifiquement de gisaguma waaw mën naa am tabax man de yëguguma ko. Mhm. léegi et puis. bañ ko wax ak léegi. man ko dalee wax ak léegi. dañu waroon a génne am nombre bu consistant. ban ko waxee léegi waroon na génne cinq mille logements jox ko digg quand même au moins ñu gis ko jox clé nit ñi ni ah ñu yàgg ku la digg ku la digg ndékki jox rek mais même sur le logement social les logements sociaux voilà la solution. Mm. au Sénégal on a de l'espace et puis nit ñi aussi ñu encouragé leen ñu génn Dakar. Hmm. Dakar gënul xombul de Dakar gënul Kaolack Dakar gënul et puis loolu li koy waral mooy il faut qu'il plus de xaw ma nu ko waxee la diversification des activités un peu partout dans le pays mais bu doo a l'hôtel le plus grand hôtel de l'Afrique maintenant c'est pas construit à Dakar et puis Dakar état bi ñu ngi leen mm-hmm. L'État est en de leur montrer cela le plus grand hôtel a été construit un peu vers euh, l'aéroport vers Diass. Mm mm-hmm. ah parce que tamit ñoom moo mënu gëmu gëm moomu moomu nit ñi gënu nit ñi gënu gënu nit ñi koo ci gis ba ne attaque ab danoo gën ay nit ñi ay jutu danoo gën ëpp dans un gouvernement ñoom ñaata la ñu ne dans un gouvernement <coughs> mais c'est ça les gens kon daal eh, kon jàpp nga ne ci ni ma déggee nga wax logements sociaux yi ay naxe rek la. ay naxe la nar a nekk mën na nekk ay ay naxe sax la a nekk mën na nekk dama ni lu baax la ba aussi bu mu ne ay nax et puis na ko nekk comme ni ma la wax mën nekk ay naxe. Hmm. parce ni ñu naxe ci loi bi la ñuy naxe ci logements sociaux yi. Hmm. loi bi dañoo nax ils ont voté la loi les gens commencent à appliquer bon jusqu'à donc ñu appliquer loi bi ñoom it tey bëgg tey ba ko appliquer et justement député yi ndax sentir ngeen ne gunge nañ leen ci tey jafe-jafe yi ngeen di dund ñoom ñi ko voté woon. ba ngaa dégg-dégg Sénégal amul lu mat fukki député yu valable su yow lan ma mere maa ngi porté Sénégal fukki député yu valable mbaa ñaar fukki député amul ko. lu waral wax ji. non xam nga lan moo ko waral parce que xamuñu déjà lan moo tax ñu fal leen benn ñi ko ci xam bëriwul suñu doon def examen yi député yi Afrique yëpp suñu leen dajewoon ñuy mhm. ñu jox leen sujet ci da parce que nekkaluñ fi askan su fi nekkaloon tey askan tey actuellement et je vais les nous dañ leen di interpeller ah ni nu fay nekkal léegi nag il faut ngeen wax ci bi à Dakar parce que lii xam nga tey voilà des problèmes comme poudrière la location bi poudrière la tey suñu intervenir woon tey ci locataire bi day tax ay problème doo am on peut ne pas aller vers une marche qui peut avoir des conséquences donc ces députés la man je je bon nous allons les aider pour la forme da ngay def affaire rek pour des raisons de d' esprit républicain mais ay ñun suñuy député xam na ne Sénégal amul fukki député yoo la ba ngaa dégg dëgg <laughs> amul fukki dé parce que ñun ñoo xamul lu ñuy fale. nee nga da ngeen organiser wu euh, semaine bii dinañ leen dégg ci kàttanu. dinañu dégg. dinañu dégg dinañu organiser wu te li ñuy bañ lan doon bañ a def parce que dañ doon bañ ni ay politiciens encagoulé lañu eh. lu jug te ñun liñ soxal mais am na loo xam dinañ ko def xam nañ Sénégal li fi ne yoral làmmiñ ñu rëy gisoo sama làmmiñ ni mu rëy tey yoral làmmiñ wu rëy di dem ci di traîner ci ay rajo di leen di de ak ak télé ñu ragal la di katkati ñun dinañ leen def lu mel noonu te nous envisageons d' organiser la marche des cinq mille locataires. cinq mille locataires te lii yëpp Macky cinq mille locataires dans les rues Dakar dinañ c' est un concept que nous allons lancer que cinq mille locataires dans les rues de Dakar parmi lesquels des locataires yu ñu génn ci biti ñooñu leen di woo parce que toujours yenn saa nit woonu day photo day photo woonu ni dañ ma génne xool leen. ñu dugal ko ci sunu ñu dugal ko ci sunu sunu te ñooñu pourtant il devait y avoir une structure qui s'occupe même de ana structure boobu c'est des citoyens sénégalais parfois ils sont dañuy feebar ñu woo téléphone ñu la maa ngi nii ngay naka ñu photo seeni voisin woo la def la appel vidéo wala ñu jël ko ñun dañ jël dugal ci panel bi am na ñoo xam dañuy dañuy jël ay moyens jàppale leen quoi ñun dañuy jël suñu moyen ci suñu biir dañuy cotiser ci suñu biir ni la lii du lii mënul wéy ñi doo fanaan à la belle étoile léegi jëmal nga wuti logement d'accord kon da ngeen di def yooyu euh, mu jafe-jafe ngeen génn ci seen poche dajale euh, jox ko mu daal di ut fi nekk waaw loolu dañ koy def sax dañu loolu du suñu liggéey parce que y a des structures sociales yu war a am Sénégal dafa am ay structures yoo xam ne yaa yu ko war a def loolu ñun du suñu liggéey parce que du a bàyyi tamit imaginer nga bàyyi xale xam nga ñu ngi mel mbel gi wax naan ay viol Sénégal xam nga fu ñuy teg seen ñu ngi bell belli naan ay viol dama lay wane ni kooku su dee jigéen mu fanaan ci mbedd bi ñu fekk ko fa violé ko nag beneen kaaw viol ko la ko ci mbedd bi mais bala nuy lool di ñun tan naan déedéet ñun nan ñii dèjà nañ wut xoolal solution wutal leen benn ne ñu def fa seen i bagage tëdd même si c'est un couple ñu ne fa ak des enfants balaa traqué bu ñu xool ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Félix Mbuub nga ngay président collectif des locataires du Sénégal merci beaucoup waaw ñun yéen la ñuy gërëm parce que yéen vraiment gisal ni su location bi sax su ko ni yéen njëkk defal interview naa cette semaine Ngoya defaloon na ko et puis ñu ngi rafetlu aussi seen liggéey gërëm di la sant